waa ndaje bi nak tay eh, ndaje bu am solo la bu am solo parce que jamono ji fimne ni dafa xawa a di comme ni ñu koy waxee ci wolof jamono ji dafa tërët jangoro yi bari na climat yi mi ngi changé jur gi doxatul na wara doxé té ñun ak jur gi ak climat yi ak adina eh, bi dañu wara vivre ensemble faut que ñu vivre ensemble alors buñu ñu bok nak ben espace bo xamné ne ñofay dëkk ah il faudrait que ku nek mëna am wér gu yaram mais wér-gu-yaram bi nga xamante bi war na am ci animal bi war nañ ko fekk ci nit ki war nañ ko fekk ci ci si euh écologie bi et donc loolu lépp boo xol taxna tax waxtaan wi am solo waxtaan wi am solo pour ñu mëna xol suñu dundin nan lañ ko mëna a ñu mëna xol aussi ñun université Amadou Mahtar mbaw jàngale mi nga filière yi nga xamné ñu ngi koy tagat xalé yi nan lañ leen mëna yé ci mbir mi parce que ëllëg ñom ñoko yoré té lu lu jara sóoraale la bu ñu si amee xam-xam bu wér ëllëg defe naa ñu ñëpp dinañu mën a am dal am feex loolu moo ko undu moo ko undu ñu jaag ñu bokk ak suñu ay partenaires ay FAO euh, ñëw fi tey di ñu jàppale si mbir mi et là ñu ngi leen di sant aussi bu baax parce que li ñuy def am na solo lool njàngale yemul rek si ay amphithéâtre ay cours mais jàngale dafa war a si si secteur yu bari. wan xel si daal buñ koy jéem a maanaam jéem euh, si wolof dañuy ne benn wër-gu-yaram. wërgu yaram bi benn la tey am luñ fi jàngee tamit recteur bi mi ngi wax tawféex tawféex ëmb na lépp mooy bien-être je pense que bien-être du santé humaine kese moo koy gérer du santé animal kese moo koy gérer du santé végétal kese moo koy gérer ñëpp a si bokk te mu ren bi ñu ngi ne dañuy jéem a maanaam lëkkale ndox mi euh, suuf si ak euh, ngelaw gi loolu mooy alam bi rek alam gi la ñuy jéem a sàmm. comme ni ko tuba di waxe gestion durable de l'écosystème, je pense que moy thématique tay bi tay gis na né université Assane Seck ak bànqaas yi ñu xamante ne ñu ko fi vraiment liñ fi ñëw tay lu lu war la té gis nañu né vraiment lu pertinent la. donc si journée bi ñun ñu koy organiser puisque communauté scientifique internationale moko initier initié nous koy organiser chaque année ici ci Sénégal. sous l'égide du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire mondiale docteur Adjaratou Diakhou Ndiaye jiite ko fi mu ne nii dafa am yeneen événement yu am ñu ñu fi nekk nii tey nag ñun projet yi ñun FAO ECTAD bi nga xamante ne mi ngi travailler ak projet bu ñuy wax Afrohoun bi nga xamante ne day tàggat université yi bokk na tamit moo installé club yi foofu bokk na ci ay li muy liggéey am na projet tamit bu ñuy wax Breakthrough Action USAID Breakthrough Action ñu ngi fi tamit donc ñoo lëkkaloo si la USAID bi nga xamantene mom mo financer programme yi di continuer ci japp bi nga xamantene ne ak support bi nga xamantene USAID mi ngi koy def état du Sénégal moo ñu tax nek fi tay di tàggat ndaw yi ci One Health pour ñu am benn comité di liggéey ensemble ñay def médecine ba ñay def euh, santé végétale ba ñay def santé environnementale ba ñay nek ci euh, mbirum euh, jurgi manam ñay def élevage ñëpp ñu lekkolo jangando avancer ndo yaakaar nañ ne buñ ko defee suñu eggee ba si cëppaandow ba ñu war a liggéeyandoo dina nekk lu yomb